يميتون المعتاد برب الذي مهان غيوب الناس برحيم لم يزل قد رحمانا السلام kilifay diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkati gu leen lu fas judoo lillahi wax budoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu lépp loola rek leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu pay de moom aw boobu seenu cantit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dimbali ma walbatiku so sama bokki taalibe yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg weesuwut Sëriñ Tuubaa sunu daariloo mën naa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ni bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bala fàttalikoo ba noppi la ngay la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ni wa aatoo xaqahoo yawma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nañu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nan ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci dese ngeen bañ ko yàq ndax yàq kat yàlla tere na ko waaye lu ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da ko tere ba bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leen mu yàq nawet bi mu ngeen ko jariñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ci li ci ngeen téye ko te bañ ko yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def da leen di gën a dimbali loolu laa jëkkoon bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisub sëriñ Tuubaa bi kenn ku ci nekk la nga man nga def ko loolu mu lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi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 may wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla lu am lu ci yàlla santaane wabtaxi fi maateeka allahu daara àllaaxirata loolu la sunu borom wax loo am sàkku ci sa tërug sa tërug àllaaxira wala sa nasiibaka mina dunya sa ci bu ko kon wax nit war leen wax lu leen di ci àllaaxira war leen wax lu leen di ci àddina kon ma leen ni leen doomu aadama yi dañuy bari bari yu dëkk yi ak yu mujj yi ak ñun ñeen ñeneen ñuy xalaf bi ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba mu defe ba defee ne yow doo nga la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yowmal xiyaamati fardan wax nay ginnaaw da ngeen di ku ne da fi moom nag ku nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaatihi mu'minan qad amila saalihaati koo xam ne yóbbaale lu fa ak gëm ak jëf yiw fa inna fa ulaa'ika lahum darajaatun Allah rek la leen joxal daraja yi gën a kawe kon nag ñun murid suñu gëm yàlla ak suñu jëf ji lépp dellu na ci Sëriñ Tuubaa la la wéeru na leen wóor ca ñu ni Sëriñ Tuubaa la nu jaayanteel sëñ Tuubaa la ñu topp sëñ Tuubaa mi ñu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yonent bi nga topp danaa joxe li ko waral ku ku jaayante moom it yonent bi nga jaayanteel te ku jaayante yonent bi yàlla nga jaayanteel ina li sunu yu bàyyi noonu ka inama yu bàyyi noonu allah man it sunu rasoola fa xabaaka allah kon nag diggante sëriñ Tuubaa ak yonent bi laa bëgg na waxtaan di jëma yonent bi defut loo xam ne da koo da koo gonte lu mu xëyee rek la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tuddee muy Serigne Mamadou Moustapha bu ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Fallou bu ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Lamine bu ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Bassirou koo xam ne koo jur tuddee ko ko nag wóor na la kenn keneen amul ci yow objet loolu kenn nattabli dox léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddam Mamadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Mamadou Sall mu ci ama wasi si wax ne mayetuma kenn ku ma waxati Mamadou Bamba bis naka tey sama diggante yàlla la wasat bi bi kaw ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo na ne bisul tey def naa sama jëmm ak sama tub muy jaamu yàlla donc boo xam ne bi nag day liggéeyal jaamu yàlla ba mag bi jaamu yàlla ba mag bi tax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 ñaan ko lenn tax taxutoon mu di ko liggéey lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéey li amul daani li ixdaami nabi ubbu saatihi daani ila mati nabi ubbu saatihi liggéey gi mu ko liggéey ak tëggeewoon koy tëgg yëpp bëgg jëm ji rek la dara doolu ko ci loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahab mahabati yal muxtar sayiduna kumil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi lahu xarban qadiman law mustanari sanada loolu ko ku julli deseeloo kooka lan kon fee na ci yonent bi kon di dama yonent bi nattab li wuru ne ku ko jàpp rasulullah nga jàpp ku jàpp rasulullah yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rek la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ Tuubaa mooy jëmm ji tur wane jëmm lay wut lay woo koo xam ne bi ñu ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee doo soo tudd murit bu ñu la dee wax murit moo tax loolu benn naka bi liw ko kon nag mu leer leen ni leen li mu lu leen war a leer la lu leen war a xam la dafa wax ne moom de sam mbooloo tofal ko nit muy def ci nit mbooloo topp ko boo ko defan ci garab nit ña dëkkoon tuuti duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raaka moo ko ko gën a jafe ko kon mel na ni tam doon liggéeyal dëpp na dëpp na ko kattan te loolu lu ciy firnde moo di dëkk murid boo gis ci moo ko sanc ndax moo joxee tuyo moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yàggale ko fa ñii dañoo faru fas sakk ko yónnee xeb la ko dañu yóbbu sa suuf ñi nga xam ne ñii seen xalaat yëggul foofa ñu far ko suuf seen bénc am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ ko denc ne dañu bëgg loo yóbbaale ko waaye ban murid bu dëkk fenn bu ko digalam dalul foofa amul kenn ko topp kenn nit koo xam ne bu sëñ Tuubaa tax mu topp ko amul loolu na wóor yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci diggante ba àddina àddina yett rek lañ fi gisoon mu jite woo ko amatul yanteel taalib yi ko toppate yaakaar ko te muy ci ñoom comme ci ma sa toogal wan na la ci boppam wan la ci sa yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo ji kenn benn taalibe bu bëgg di moroom ma amut ngir la mu la mu xam ci Sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak la mu ko wan ak la mu ko dal bëggul di moroom loolu wër na ñëpp dara nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won mu nga gis ba tax na bëggatoo di kenn kooku xam woon wane na ne liggéey ci taalibe yi moo doon wàllam te addina li ci daalik mooy alxuraan alxuraan moom dafa wax ne yow mal xiyaamati kenn ko ne sa pàgg addina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne malaayka ñëpp gis ko ba xamee loola laa def def alxuraan muy sama pàggu teef moom mi ci yàlla jëm ci sonent bi ci jëlu sat loolu moo waral mu daa ko bind di ko jàngal dëkk boo mu mos a nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaar yoon bu ma tëggee ñu jàng ko yaari yoon fu mu mos a sañ ci loolu lañ fay def ba njaaree bi ngeen loolu du fa jóg tey jii Tuubaa ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa bi ne bis bu ñeneen daañu fi jàng ñaari kaamil bi suba ak benn bu tisbaar ak benn bu takkusaan dëkk bi lee ma am téeméer rek waaye loolu génnagul loolu kon wan na leen ni moo see doal fara mel na it nag ne séddoo jum séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp bis toog ne fii benn taali bi ci taali bi xam na ku leen xamul santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab taali wutal ko jëfe ak mbokk ci malaadum seet jox ko kenn ma sëgis nag mën na ko mën na ko ci loxoom lenn lu lu kami lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax ma saa ñëw jënd pañu guro jox ko mu ne ko loo ci jiwlu mu ne ko dama di ne bëgg guru, guro ñun la koy yóbbul daa di wër lu kër ci fu ñu guro nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg dara du yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa tàllal kaamil bi sëñ bi téye ko ñaari loxom ni ko yow de sa kaamil bi waw na lool xam kasatum bi ci suratul baqara rek nga fàtte sadda wallahi hasin bañ tuubee noonu la kon ngeen xam ne alxuraan la ci àddina benn bisees na muy Tuubaa ji nag Tuubaa moom juróom-ñaari at la fi dëkk ñu jëlee ko ci dégg si mu ji boromam waaye diirum li muy nekk ci àll bi mu ngi naan rabbi stajib waltu ko mil maana waytu rara Tuubaa la si bikkatuna fii subudiana mi ngi wax yesir jo mi di Tuubaa wax mi di wax ni asawara waltu tibli sama iskaan ku mu ji fi la fi la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jàngee fi la ñëpp a dëkk sama la ni leen réew mi lu ñu jàmm du fi am kenn mënu ko fi indi bu famoon ay ba ko fi indi la weesu loolu na leen wóor sëñ Tuba liggéey ñu ko jëkk tey loolu man mën naa ko xam am naa ci firnde yu ma leer yàlla na yàlla saxal ci jamono ci sutural na ci mosul ñu ci dimbali ñu ci barkeel lépp alhamdulillahi ci jullit yi yéen mbokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci bis bii di leen jégglu itam ci loo xam ne xam naa ko ak loo xam ne xamuma ko ci lu warul sama diggante yéen ginnaaw bu ma leen gërëmee nag sant leen maa ngi leen di di rek as waxtaan su tuuti soo xam ne ci ñetti fànn rek la jëm genn gi ñu ngi jëm ci waxtaan bi ñu doon wax ci wàllu jaayante lu ci juddoo lu am njëriñ loo xam ne lu ma a xam la ak diggante sëñ Tuuba ak yàlla rek dolli ci aslaf ci xam le ak suñu diggante sëñ Tuuba nag yetta yooyu rek la li nga xam nag ne moo bàyyi ko ci wàllu jaayante bi te warees ko waxtaane ba mu gën a leer ndax lu nu amal njëriñ di caa bàyyi ko moo di sunu borom ba mu waxee ne istara minal mu'minina anfusahum dafa daal di xam ne ku jënd la fa moom yaa ko moom te sañ nga caa jaar la nga ca bëgg a ko mu daal di loolu li mu ci jublu moo di ñu def li mu wax ba moom mu defal leen li mu leen wax ba mu ko defee nag lëf li eh, am nag ñoo xam ne dañoo waxtaan ak yonent bi ne ko daal ci bokk nga ne daal di xëy ne tey ci seen kaw su dul waxtaan ak ñoom loolu daal defee na ne ku ko mën a bañ a def moo gën nañu leen woo parkeen ku nekk ñu sant tuub boo ko defee fa lillaahi alhamdu boo ko deful ñu daal laaj ci alal loo xam ne euh, dana yóbbu suuf it mbaa ñu daal di ci sa kaw ba mu ko defee Sidina Omar moom daal ne moom lii loolu andu ci moom daal lu muy def mooy li yàlla santaane rek ci la mën a ànd ku ci jiitu mu topp ci yow ku ci jiituwul mu jàpp boppam ba ñu ko defee mbooloo ma daal gën lëng ci lii ñu daal woote ku yonent bi woo ba nga ñëw rek mu sant tuub nga ne ko man de mën a guma ko mu daal lay xamal nag ne la lu mën a ñàkk wa illaa laaj naa la nangam lim boobee mu la wax nga daal koy wax awuma ko mu ne la bu ko waxati ba ngay jóge sa kër yaa wax sa soxna ni ko denc bi ma denc ma demee te dellu siwuma mooy la moom te loolu ëpp na lii ma la laaj su ko defee kooka daal di ko ne loolu day fekki woo ko kon nag tuum naa ñu yendoo loola yendoo loola yendoo loola ba ngoon سيدنا جبريل لاتني جبنا دلنا ما كان للنبي أن يكون له أثر حتى يسخن في الأرض تريدون خير الدنيا والله يريد الآخرة والله حسيس حكيم لولا كتاب من الله سبق كتاب بالجميل والمفص لمسكم فيما أخذتم فيها أصحاب نسين فكلوا مما حنمتم أرادا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يرنت بلاد نيوك doon waxee dem ba ci sidina Omar daal di ko ne al xaqu maaka ala xuma Omar ji loolee ko indi farox ji ñu ko tuddi looloo ko indi kon nag nit ci dëgg bañ caa wér ak wér ji ak mu metti ak mu naqari moom la ñëpp war a yemale ngir li muy jógan war a leer kon nag nu itam bu ñu jaayantee Serigne Touba te ni ni ni gaa yi bi defoon rek la ñu def anfusahum wa amwaalahum la ñu ko jox li nu woote mooy ñoom dañ leen a daal laaj ba kañ ñu fi saa si rek noonu suñu suñu jaayante jëm suñu yërug dund war na noo xam ne moom amul nit lu mu jaay te yaakaar jot njëg njëgg moomatu ko moomunu sunuy bakkan moomunu sunuy alal sunu lépp sëñ Tuubaa ko loolu na leen wóor gannaaw ba loolu wéyee nag ngeen yëg ne sëñ Tuubaa mi nu làqu ci gannaawam ku yàlla booleeg moom sant yàlla rek a ko des yàlla wax na ne حوسية في الدارين ما أسعوا بكونه يخلق ما يسعه وأنا سئت الذي ساء الإله والإله يسعه ما سيزه بلا ضر ولا كو خبلان سيدي انت يا كان سيدي يالا يا كان سيدي لو صوب يالا دي سي توبار تي بلا لا دار صوب دي توبار يالا فوف ما نيسو داوس كون مو غورينا نم نان سي لو غور جاب نان سي لو غور نان سي تك نفسو بكال تي ني موم داي دا فك mësul def ba ba mu ñëwee fekk na ñu daa deefaa liggéeyal yàlla ya- yàlla ak yonent bi ba bi mu ñëwee waaye nag des naa liggéey ba bëccëg bu ngoonee nga gont gont bu mu jàpp bu guddee nga dem nopp loolu moo doonoon liggéey aw liggéey yi moom nag bi mu ñëwee dafa ak gont ak ak dox kon war lu def lu noonu defuñu war def ma sant leen gërëm leen ñaani yàlla nag mu dimbali nu nu taxaw nag ci liggéey yu ren yàlla ñaani yàlla mu barkeelal nu ko ba yegg foo xam ne xalaatuñu ko woon ci dimbali nu dimbalal sayil ak loolu baatin te li yaakaar ci sëñ Tuubaa di ko wut mu mu ko teg ko ci suñu loxo liggéey bii ma doon wax ak yéen ci jumaa ji nag moom itam tàmbali nañu ko fukki weer ak juróom yett ci lay war a sotti loolu moo nekk ci contrat ba buñ ci yeggee jàmm leneen la des ci waaye kooku wàll da féete jërë ngeen jëf baal leen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi di gërëm am na tuuti rek ci waxtaan ma leen bëgg a jotal wàllu màggal gi moom bu ci waree sa wax bu ñu boo déglu ko ci lan ñu sëñ Moustapha Bassirou li ñuy bëgg a wax ak yéen nag mu ngi jëm ci Touba ak jumaa ji damaa gis ne màggalu daaw ji ci laa xamaloon ne am naa pas-pas yéene yàq li jumaa ji yéen ñëpp nag ngeen daal di maase ci doole seen jom seen yitte ak seen góorgóorlu ñëpp def ko amul kekkaar ku ci ne ko ci yàlla def na nag màggalu daaw su jaar màggalu ren nag yàlla defal na ci toog ju rëy yoo xam ne tax muy bëgg a wax tawfeex gi moo di màggal gi yàlla dafa def bisu màggal gi ci boppam di bisub àjjuma bisub àjjuma bu dajee bu dajee bisub màggal yomb bëgg kon yi nga ak am ba nga ma ne suñ koy julli bis boobu ñu fas ko def ñu si mujj ci julli si yokk jumaa ji loolu nag laa xam ne mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy jëkk a julli yokk jumaa ji léegi bi sax àggagut kocc koccal def na ji waaye nag bis bi ci boppam mooy bis bu rëy ci noonu bis xam ne bu jàllee amaana bu nu ne melal tollu ni ajjuma yi bari na waaye du ci am war sax nga bëgg rek ñu julli si ci bis boobu julli xamal loolu xam naa ko waaye nag maa ngi leen di xamal ne dëkk bii dafa am lu fi nekk dama bëgg mu tuxul xam dafa fee ne juba ji dëgg bi waral mu bëgg nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di ñëw yëpp di siyaare ak ak siyaare rek li ñu tax a jóg ak bëgg lu baax nag kenn bañ leen a mën a nax wala kenn bañ leen a mën a tooñ ku ngeen ci gis mu yorum ndox naa leen ndoxum barkeelu la naa lal te barkeelu ku mu doon ci baj ba rek alfu tënk jox leen ngeen lii ko benn ku leen fi naa barab bi fu ñu siyaare la def ci dara furul barabu sëñ Tuubaa bi ak yeneen barab yi nga xam ne ay kilifa fa ne ku dul kooku ñu li li ma rafet ziaral kay amut ndox mu ñu fiy barkeeloo mel na la fi ñun ay biir a ci di si ko jaay kenn ab teen la woon sëñ Tuba bëri ci njëriñu njëriñu àddina ak yu àllaaxira yu bari muy njëriñal tari bi bëgg mu doon bi bëgg bëgg mu moo tax defee ko ab lu nit ñi bari bari ndox mi bëgg mën ci su keneen joxum ndox nag feneen te jëlee ko ay baaj bi rek sa jox la ko ndax yooyu caaxaan yooyu rek laa bëgg ngeen ngeen xam ne dafa fee war a jëm te dafa fiy jëm ñi nga xam ne ñu ngi fi ne te nekkee nekkee yoon si li si war a nekkee na leen wóor ci ne sëñ Tuubaa dana ko diggaale ñoom man nag li ma leen di wax dara mënta tee ma wax leen dara mënta tee ma xamal leen li leen وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله درمان كتيما خمال بل نقشه بالحق على الباطل فيدمطه فيسعى وصيحا درمان كتيما اللار اللي وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان شرفا كنا من جد من جد كنا كتلين ورمي كما يدلين ملين nan mooy ci yàlla ak sëñ Tuubaa mooy li wóor jàpp ci yàlla def ko ko ko rek yàlla pexe ma jeex yàlla def fi mooy yomb nga moytu bu dee jafe nga moytu bu neexee nga moytu bu naqaree nga moytu ku ko def ci yàlla jàll waaye jàpp ci yàlla dom ba ku borom pexe koy def bu pexe bi jeexee mboq loolu nag du dara loolu yàlla bëggoon a leeral bëgg képp ci ñëw kenn bañ laa mën a nax kenn bañ laa mën a yàqal dara te mu maase nag ci am pas-pas nag ci bis boobu ginnaaw da bis bu nu yomb فتعل البيوت في تفه نفسي بالجلد الشهود والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على التي من مرادي السلام rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki taalib bi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bëgg a waxtaan ak yéen nag ci yetti fànn genn gi mooy cant gu ma leen sant ngërëm lu ma leen gërëm seere gu ma seere seen taxawaay ci wàllu sëñ Tuubaa loolu cant la koo xam ne mënuma leen ko ñàkk jotal ba mu leer leen nañ te amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp laa ko boole amul kilifa amul surga ngir gisaane lépp lu ñu yëkkati jëme ko ci wàllu sëñ Tuubaa seen jom rek ngeen ci teg ak seen bakkan ak seen yéene ba loola am na mu ko bëgg kon boobu yi cant moom mënuma leen ko ñàkk a jotal ngeen xam ne awma lenn lu ma leen di war a wax lu wertu sant leen ci leen weesu ba noppi ak ci nu toll te xam naa ni noonu la leen di sant ci lanu jëm ak itam nag di leen di leen xamal ni leen ah ni nu war a àndee sëñ Tuubaa nag rek laa bëgg nu waxtaane ko ndax dama bëgg nu jëriñu addina jëriñu àllaaxira sëñ Tuubaa day lu mu am rasulullahi ko ko jox waaye daal dafa jox sa rasulullahi léppam day jëkk sa door koo defal ko def ndax dafa wax ni lawut daara ni yeet yi jox naa ko sama yéene wañuñ muy waxit mu tii ak sama xam-xam ak sama liggéey waroo ci waju sumaa nii ak sama garu ak sama yaram wa kulli nag bi la suuf ak ci loolu xajate ci dara الله وحده له حياتي وموتي وحده وله شري وجهري ويخنني بأعلى jox naa ko sama dund jox naa ko sama lee te gëldu ma ci keneen moom dong jox naa ko sama mbóot jox naa ko sama sayf loolu kon ah noonu dong la nu war a àndeeg sëñ Tuubaa ndax bu nu ne àndeeg moom li ko yonente bi defal nag tëb lu ma ne dana nu ko defal li ko yonente bi defal mooy mooy lan ab xaani yàllaahu bil muxtaari mu ci setan kama bihi li sama fawqal buraasi sara yàlla bàyyi na ma fi man na ki di kiimaan ci yonent bi ñi ma fabe yonent bi teg ko ci kaw alburaax yóbbu ko ci kaw asamaan kon nag ko am ku mel noonu war sax mooy te la nga man nga def ko te fas yéene nag la mu am ci boromam yow itam nga sàkku te moom day bu nu amee jom bu nu amee fulla bu nu amee fayda bu nu wayee kenn du gañe ngir moom day diggam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at na yu bari yoo xam ne su ko lim ndax ëpp na junni ak nangam waaye teg nam ngàngam boole koog jom ba mu wóor ñëpp ne ña ànd nag rasulullah ko ci kon nag ñun dong nga xam ne ci démb la fi jóge ña ànd nag bu ñoo la ci war na ma waxtaan ak dong yi nga xam nag ne nooy kër gi waxtaan ak yéen ñi nga xam ne yaakaaroo leen lu dul sëriñ Tuubaa te mu jaral leen lu ne nga xam ne yéen a sos lépp ku ci ne tànki baayam lay dox wala tànki maamam gis naa bu baax a baax soxna yi ngeen di sonn ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa gis naa ci ñu bari ñoo xam ne nattabliwuma ne bu ñu amutoon oto yu leen indi daanañu dox ak seen tànk soone soxna yi ngeen fii sonn nag laa leen bëgg a leeral gisuma ci kenn gis naa ne mënul leen a yàgg sax ci seen i kilifa mënuñu leen ay volontaire rek fa ngeen di jaar di romb di ñoom ak a dem waaye bu leen ko jàppee mukk ne di si na doyadal wala di si na sewal wala di si na dollu ñaan ko nangu rek la ko nangu rek moo waral loolu waaye nga leen wooyu xam nanu ne yéen ay gi yéen ay waa gi te bu ngeen bari wutoon kenn du fi jaar kon nag sant yàlla te gërëm yàlla te yëg ne doyadal luñu leen ñaan gi naan nangu rek te ñaan bu nangoo lu jël borom loolu ngay coono bi waaye du leneen ma di leen xamal nag nag ci melu adduna melu doomu aadama loo xam ne nu ñëpp na maa xam doomu aadama moom xam ne nu ñëpp xam ko doomu aadama moom bind bi leen yàlla bind benn la moo ak loo bari bari daraja moo doon dem arasa te dellu si itam moo doon dem arasaka dellu si te natt bi li wuñu ko wóor leen itam fii rek lañ lay nëg ngeen xam ne aras kenn dëkk ko fa da ngay dellu si te boo dellu si fii de ak commencé woon boo defee lu bon ñu wax ko boo ñu wedd ko yal na yàlla saxal na ci jub te saxal ci ak wér te yëg ne ku bëgg a mucc da ngay nekk ci lu jub ku baax da ngay nekk ci lu wér nan góorgóorlu ci ak jub mooy suñu dimbal nan góorgóorlu ci lu wér mooy jërë ngeen jëf yéen mbokki taalibe yi nag ginnaaw ba ma waxtaan ak yéen ba noppi maam lu ma leen bëgg na waxaat leeral leen ko nag loola moo di liggéey bi ngeen doon julli si tey keroog tegu xeeroo ma ne leen liggéey bi àgg na àgg na joojee am na saa bu ñu ko sottalee nag ba dara desitu si danaa am beneen liggéey bu ma yëkkateyaat boo xam ne ci jumaa ji dong lay jëm dana day ni bu jëkk bi mbaa mu ëpp ko waaye nu mu ci mën a demee nag bu nu ci yeggee danaa nu ànd ko na nu ànd woon ci lii dégg ngeen jëf ci def yi diine yi nga xam ne noo bokk lislaam lislaam dong nga tax leen a jóg te lépp lu nga xew di ñu bàyyi mboolem lu ñu jàpp ñëw teew fi te dara indiwu leen fi lu may yàlla ak yonent bi rek ak lislaam seen pay dama ko amut seenu cant awuma ko yàlla ko amee yal leen ci jox lu ñu seen wut nga jàpp lii ma it kilifa yi ambassadeurs yi nga xam ne yéen lañu war a àndal ñëw fi ñëw nañu fi ñoom itam maa ngi di sant leen gërëm ndax seeni réew la ñu fi toogal te bis bi noonu sunu bisa ku fi toog rek noonu nga dikkal noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla boole dimbali bi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi yéen bokki taali bi maa di gën a tey bi di leen nuyu di leen gërëm di leen sant loo gën a waxtaan ak naa leen ko ca magal ga yéen liggéey bi àgg na waaye nag am na beneen bu ma bëgg a suub boo xam ne dana rey bu jëkk bi baa ma jege ko waaye ci jumaa ji rek la lépp jëm loolu nag ak bëgg day waxtaane ko yéen ñi mu demee bala na ko waxtaane nag dañuy jëkk waxtaane mbirum Tuubaa ci boppam waxtaane yi mbirum sëñ ci boppam waxtaane itam digalal sëñ Tuubaa nan ci war a def Tuubaa moom barab la boo xam ne ku gis mbirum sëñ Tuubaa digg ay waxam dina la wóor cëng ne dëkk la boo xam ne bii fa mu jëm yëgagul ngir moom bi bi bi fi ne dafay wax ne da ngeen fa toog ba lu waay di wuti soxla di ko wuti ndax ci jamono ji wala mu di ko wuti ndakaaru lu ko soxlaa tuuba la ko wuti ji waxoon na fi it ne ndox mi ngeen di tawat lépp da ngeen ko bëgg leen ko tawat kon nag dëkk bi war ngeen a xam ne ndax daana wax ne ku fi sam xel indi wut soo xel indi la fi woote bi nag tind ko moo ko defal boppam moo wax ne fa kay fa ah wii matan li mu lii wala mat mu lii ñëru xalaay laakin unaadi kollal hibaadi ilaa himaadi ilaa jalaay yaa ahla barri yaa ahla bahri moo joori barri bahri saqay laakin unaadi kollal hibaadi moo fi dajale mbooloo ñoo leen moom dinaa jalaay yi it moo leen fi baax ndax kenn du ko te dégg ko ku toxoo Tuubaa dem fenn te dinaa jalaay dinaa jalaay jooju rek ko wax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi fiy sanc si koo fi gis bu la wax ne dama fiy sanc si dalay wax ne dama ñibbi si kon loolu wane na ne ku ne fa nga neen ab ci rek nga ko jàpp waaye fii nga jàpp sa kër mboolem ñu ko yaakaar gannaaw bi loolu yooyu yëpp képp koo xam ne sa bakkan raf na ak su mu rafet na ngay wax ne ñu ngi yóbbu Tuubaa ba tële ko nga ñu dal ko bàyyi kon nag dëkk bi moo ko wooteel boppam moo ko saxalal boppam moo ko defalal boppam lépp jërmam ji nag li nga xam a xam moo di moom day àddina jox ko benn cër ci bopp ngir dafa bind wax ne dafa dafa dafa bind wax ne add barati duniyaa yàlla ya xablu wa ma bu jëkk waaye bi ma dëddoo ma daal fay fay jaay ko sama sama gàllankoor yëpp daal di jeex mënatumaa gàllankoor ci dara mënatumaa taxaare lenn وبعد هذه أقبلت وإني أقبلت لله وأبقى مني gannaaw bu àddina bu ko àdduna dëggoo ba man àddina gannaaw ba noppi nag àdduna jublu at na ko waaye bu ko àddina jublu atee moom dafa daal di jublu boromam rek sunu borom fàtte ko xewalam yëpp kon nag ngeen xam ne sëñ Tuubaa lu mu am yàllaa ko ko lu ñuy yaakaar ci moom la ne kon nag lu ñuy jëf moom la ko loo xam ne bàyyi ko fan mbaa ci moom kon nag loolu it war nañu ko xam bu baax a baax dem ji nag la ciy bés fi ma ci jëm ci ko ba ko wax moo di liggéeyal sëñ Tuubaa rek lu war mën a lu ko lenn liggéey bi nag euh, sëñ Tuubaa day koo xam ne kenn jógewu ko yëpp da ko bokk mu ngi mel ni guur gu taxaw rek ak sandax barke sandax ba jeex na tàkk ci guddi waaye jeexal xaajal dara kon nag nan fa suñu jëm rek ko di ko liggéeyal mooy suñu dimbalal tey mooy suñu dimbalal ëllëg liggéey bi may bëgg wax nag ni mu dane laa bëgg wax yéen bi ma fa waxoon te ñu ak man ko la mu di waaj sàkke sàkke yu ko wër loolu kon am na ba noppi nga wax te itam moo de jumaa ji bëgg jëmmi jumaa ji ci boppam mu def ko ni jëmmi ji sang ko ba mu set wecc solo ko meneen mbub moo xam ne ni ku ko gis dana xam ne mbubu yàlla na moom gannaaw bu loolu yëpp barabu sëñ Tuubaa bi ci boppam li daane fi ñuy ma fi fi ñuy demaan julee la fa dale ma ca escalier ca suuf ak barabu sëñ bi ci boppam ko liggéey woo xam ne képp koo xam ne dem nga ci barabu Rasulullahi boo ñëwee gis ko da xam ne ni ñu ko tuddee xadimu rasulullah yi mas na ko doon te ngeen yëg ne rasulullah yi fooxee mu ne nañu ko lañ ko ko nag moom itam gannaaw ñu ñu fi des war na fab suñu jot ko noo xam ne ku ñu xam ne rasulullah am na waaye mooy dama ko doon seetlu ba xam li ko war a def ak ni mu ko bëggee ma nag ne ma milliard bu man daanaka milliard rek waaye nag kon nan ko daan defee rek noo nga ca man de lu ma am dara ko ci def lu ma leen jox dara ko dara ko ci def maa ngi ñaan nag mboolem ku yaakaar sëñ Tuubaa la mën nga def loolu mooy waxtaan maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen gërëm nag ci li weer ndax la ji bi andi doon ko andi rafet na lool sedd na lool sama xol sedd na xol bu sëñ Tuubaa bi wóor na mu bii yegsi na nañ ko jàppe noonu rek mu teroon koy sant wax soo xamee ne nag yegsi naa ci ñu ko tàmbali danaa leen ne bi sàngam la ko def si tàmbali bi sàngam lay àgg jërëjëf ñu ngi leen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na yàlla fàq ci dimbalu yàlla na sëñ Tuubaa taxaw yàlla na sëñ wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gërëm maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di jégalu itam sama waxtaanu tey nag boo gàtt rek la mën a doon fekk weesu it yàlla mi nu moom ñi muy jëflante ak ñun ak li muy doxale mu xam ci aslëf ndax mu mën noo dolli xam ko lu jëm ak lu nu war a def yàlla moom mu ngi doxal rek ci xudrat ak iraadatu kàttan ak coobare yàlla rek ko yor ci ci liy jëfandikoo lépp lu muy jëfandikoo wone na na it ne lu dëgg lam ramini sanaa yi ilal arli kon mel na ni loo gis rek mu yegg si te kaw la ko dogale wàcce fi ngir dafa wax ne allahu lasi xalaqa sabha samawaati wa min al arli mislahunna yatanasalu al amru baynahunna li taalamu anna allaha ala kulli shay'in xadir wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilman ginnaaw juróom-ñaari asamaan yi bi ñu ko bindee dafa tuddati ay camam ci suuf lu tolloog moom mbir yëpp nag di wàcc ci seen diggante ñoom ñaar kon ni ma koy wàccee war na nu koo xam ba xam nu nuy sàkkoo ni ma koy wàccee moo di asamaan yi juróom-ñaari asamaan la asamaan su ne àlluwa ne àlluwa ju ne jaamu bu yàlla bu ne am nga ci ab dig ci lu ne ba àlluwa yëpp àgg waaye nag juróom-benni alluwa yi ci juróom-benni alluwa yi moom mu daal di am lu mu ci wax li mu ci wax moo di li ku lii ajalin ci taabul bi bu ne am na téere yamhu llaahu maa yashaa'u wa yuthbit yàlla dana ci far lu ko sa xalaat ci leneen wa indahu ummul kitaab yi moom mooy juróom-ñaareel bi lenn luñ ci xis bind dara du ko xool yii li nga xam ne nga wax na ne yamhu llaahu maa yashaa'u wa yuthbit nag yàlla du def dara ci neen lu ne dafa am lu mu koy defee lii mu ngi koy mi ngi la koy defal ci nga sant ko lii mi ngi la koy defal ci nga tuub mu jégal lii mi ngi la koy defal ci nga ñaan nga nangu mu nangul la ko lii mi ngi la koy defal ci sàkk sarax lii mi ngi la koy defal ci am nga am na kilifa bu mat kilifa nekk ci gannaawam te lu la wax nga def kon nag sant war na nu koy def dëgg la naam tuub war na nu koy def dëgg la naam sàkk sarax war na nu koy def dëgg la naam ñaan war na nu koy def dëgg la naam waaye du góor daal nan mooy ci sëñ Tuubaa te bañ koo boole dara moom mi nga xam ne baat bu wax ak lu mu bind boo ko teqantalee dana la wóor ne ci umul kitaab la jóg jërëjëf jëf bal الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi jullit yi yéen mbokk taal yi maa ngi jottali ak nuyoo di jottali ak cant di jottali ngërëm di ndokkeele di balwaq waxtaan yi nu war a waxtaan bari na ko tàmbali nanu fàttaliku dénkaane boo xam ne Serigne Touba daana ko dénkaane ak wax joo ne daana ko wax bu ju wér ci moom daa wax ne saa bu ngeen demee ba melaw addina bëgg leen a génn ci yàlla ak yonent bi bu boobaa dal leen ciy delloo seen bopp fa saasa te bu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax moo daa wax it ne nit ñi day layoon ñoom ba noppi ci fii ne jëkkës fa nu ngir jëf naa ñu gis wax naa bu dégg bind naa ñu jàng kon nag ma fàttali ci dénkaane yooyu mu daa dénkaane door a jëm nag ci lu ñu war a waxtaane sunu waxtaanu tey nag noonu ko war a jëme ci àddina ak meloom ak li tax ñu ñu andi lu fi ak ñu mu demee ci loolu jàllee mu teg ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam war a ànd moom ak ànd bi ci boppam it li mu ci nekkal loolu war nañu ko waxtaanee ak itam liggéey bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci arab ci gàmmoo laa leen ko waxoon suñu ci toll ak ne mu demee lépp ma leeral leen ko. àdduna moom bëgg naa nu yëg ne andi wuñu ñu fi ngir noppal moom andi wuñu ñu ngir mu sax dara andi wulu di lugul sunu yaari waajur yi nga xam ne ñoo na may te nekkoon ci àjjana jëf ji ci jëf loo xam ne terewoon nañ leen ko te seytaane fexe leen ba ñu jëf ko ba leen sunu borom ba leen sunu borom ne al'an hakuma alama hakuma antakuma sa jërëfi waqul lakuma ina seytaane lakuma addu mubinum ñu ne xaara rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirina loolu dama lañ cëppal ci fii wala fi lari mutaqaruhu maqaamun ilahum kon nañ gën yëngu adduna lu yàlla woyofal la lu yàlla gàttal la ndax bu mun si sëppeelee ndox ak suuf rek la fi def lépp lu ci lu ci si jariñoo ci ndox ma suuf si sa luy génne te ngar ngar rek koy génne akub coono loolu kon wo na ne euh, noppal sax bi lu leer la nga sonn koo xam ne ka sa bàyyi ka jur bàyyi mu tënk ci sa bët loolu kon won na leen ne kooku ñu kii naka noppalu gi itam war na leen won ne gannaaw kenn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara kaaba gi rek la fi defoon te kaaba gi ba su defee malaayika yi liggéey ko yëri si yaxuut bi nga xamante ne tuufaanu nahi bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa fa musulma ibrahima ñëwee ak Ismaayla ci bu dëkk la Ismaayla foofa soo yabale si dina Ibrahima mu dem mu yabal si ma nga xam ne dañoo fa doon samp taaba la bopp mu rëddal ko fa mu jaaraat mu tabax ko kon tabax googu si na Ibrahima ñoo ma ko def. ngeen gis na ne bu dee jaar day gas door a am fu ñu dugg bu dee am picc day sàgg door a am fu ñu dugg bu dee nit day fa day day ay bant door a am fu ñu dugg bu dee ab tabax ay ñaxam la jaay door a am la mu fa la mu fa tabax. ba noppi nag yàlla fab yëpp soxal na ko ci biir àddina àddina yoo xam ne du mu tàggoog moom mukk lenn li mooy rees lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loolu la ko fay ji bu fee bu subaa nga nga soxla at mu dem ci ñoom lépp loo xam ne li saw nga ko ñun ñu si daje si si si leen bu ñu wasal boo ko suñu ba sa bés ci ba doo ko mën a ñëwee ci pénc bi kon war na leen ne dara gannaaw bu loolu yooyu itam képp foo xam ne fa nga dëkk la fonk fonk dëkk waay ba gis ne dañ koy xëy fop ak a defar wa ilaa mu daal di mel ni yërul dara boo amee gis bu gàtt arab ba mel ni amatul njëriñ kon nag mu war a xam ne adduna moom nampalu indi wunu fi sax si indi wunu fi daa neexal ñu indi wunu fi daa tayu adduna lu ma taxam la def lu daal si barab yem si barab lu mu doon gàttam waaye lu aji fay gàtt gàtt mun nga ko gën a gàtt ngir doomu adama boo gis ñu gudd gudd aw fan te fekk aji na la ko bàyyi doomu adama ci boppam itam li muy gàtt gàtt nga ak mën a ko gën a gàtt ngir ku ne am nga ab diir war a man dara su boo fi yàggee téere nga door koy gis su man fekk nit li muy gàtt gàtt moo war àllaa faya te àllaa faya yëmul fan te nag lu si fooy xëju ci lu si caaxaan xëju ci lu def si mayamam taxu muy wax kon addina ngoog aw melo ba ngoog li ñu subaa ngoog li ñu melo ngoog ñu jëm nag ci wàllu sëñ Tuubaa nga xam ne yaakaaru ku dul sëñ Tuubaa day joo xam ne ku yàlla defal tawfeex nga nekk ci gannaawam ko war a sant yàlla nga yëg xam fu mu jëm xam fu mu la jëme ko ànd ak moom xol war naa dal xol war naa sedd yaakaar war naa dëgër te moom bi képp ci ànd ak moom te ñoom bëgg ci yow su mu mën a doon li nga daw lu ne raw nga ko li nga si yóotu ne jox nga ko ndax moo wax ne ayyasa ayyasa rabbi abadan wax wal muslim ibnitu nit ñi wax sàkku lala nii parce que la koy si daw di ko raw seytaane la koy daw moom naa ko mu doog a wax ne elay xaara ma ilayhi sarra tuslil iyooli man adamul jira li nga xam ne na gën a baax tey ñun daw jëm di ko wuti moom xëcc ko ko kon nag ku nekk ci loo xam la ngay daw raw nga sol nga yóbbu jàmm te xam ne mu ne nun liggéey sëñ Tuubaa moo nu war leneen warul ñu def ni mu def yonent bi ba yonent bi def ko mu ko def noonu rek lañ ci war a jéem a def comme suñu kàttan te moom nee na man sànnoon ni xayal xaj yi Mustafa فإنني أخدمه بما استطعت أخدمه إلى دخول الجامعة دار القرار والمنى والمنى من وقت بل بلا تعجنا منكم أمن الوقت فنونك سوي الجيد الجيد من ما ينكو تواحن في نهار ستفن أجر النهار سيأتي بدامون وحن لي ينزل لن لدي يرسل ci jumaan loo xam ne ak barabam bi ku ñëw dana xam ne mooy Xaadimu Rasuul loola ba ma koy wax noo ak mu sax umpuma ngir man ñu wax ji am naa xam-xam te ak mi du ak ma melul na ak war a mel ndax daaw la sama ay bi ne million la ak ñett ma def ci kilo jiw bi te sama ay bi ne ren fukki million ak ñaar waaye nag su ma wutoon nag ma xam ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ Tuubaa te duñu ko bànte kon nag ba ma leen ko ba ma leen koy wax waxoon naa leen ni leen milliard bu manque tuuti rek waaye li si laajte ci ñëw ci sama waxo juróom benn téeméeri million mat na ko juróom benn téeméeri million yooyu ñu ko ma yëgale ni leen am na ci maa ngi si nekk bu ma leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne يوم خطفه القصه فتره من القصه في مكه جيران في جيران في كبار يوم خرج له فكل شيء تو خطفه day wax yii sama doom laa ko joxe yii sama maam laa ko joxe yii sama baay laa ko joxe defal ma ko joxe yi sëñ tubaab kon nag loolu wan na leen ne ñun yëpp joxe nañ sëñ tubaab seen xol joxe nañ sëñ tubaab seen bopp kon nag dana ma dugal def yi ñu ngërëm def yi ñu sant xamal leen ñu ngëm lëgg yi ñu ngëm ginnaaw xaalis boobu dajane loolu si def jëm mu daal di mel na war a mel waaye nag waxtu yi ñu wër waxtu wu ñu dematee ba nu war a def rek dana leen ko wax maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant sëriñ si di sant tool yi di sant góor sant jigéen ñi yi di sant màggat ak ñi nga xam ne moom ñu sax ci seen wàjjoor di leen doxal ak ñu leen àllaaxira ba noppi ci seen yéen seen seen ko jëf ba noonu sëñ Tuubaa yal na nu sëñ Tuubaa nangul yal na nu sëñ Tuubaa téyel boppam tawet bat na loolu mooy loo xam ne ñu mu ko a ñàkk a wax ngeen leeral ko leeral leen ko gannaaw bu loolu yooyu nag bu nu waree bu nu waree nan jéem a jëm ci tool ci lu baax ak ak rafet ñor ak ak fasoo liggéey yi nga xam ne suñu benn liggéey wala suñu benn ñax war a jëm fenn lu muy liggéey sëñ mi nga xam ne moom yor moo defar suñu ëpp la mu defar suñu àllaaga jërëjëf jëf wàcc ci juróom benn fan ci weeru août 1968 la Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci xilaafa gi ci fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juin nako ko ci la dellu buy ji boroomam bi nga xamee ni jeexal na liggéey bi nga xam ni papaam ju tedd bi cheikh Mouhamadou Bamba santoon na ko cheikh Abdou Lahat Mbacké ko daan woowee Baye Laat mi ngi gane àddina ci 1914 moo wuutu woon cheikh Falilou Mbacké bi nga xam ni moo wutu woon Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi nga xam ni moo jëkk nekk xalifa sëñ Touba. bi mu amee juróom-ñaari at la ko maam Cheikh Mouhamadou Bamba joxoon ku ñuy wax Serigne Alassane Diakhaté pour mu jàngal ko alxuraanul karim bi mu jógee ci daaray maam Alassane Diakhaté Cheikh Abdoul Ahad jóge na fa ak xam-xam yu wóor ci alxuraan ndax wàcc na kamilu alxuraan jàng na li nga xam ni mooy charia jàng na lépp loo xam ni mi ngi aaju ci culture islamique pour gën a yokk xam-xamam pour gën a yokk ni nga xam ni moom lay jaamoo yàlla di ko digal nit ñi ñu jaamoo ko topp ko suñu borom ba sëriñ Tuubaa Mbàkke li mu liggéey ci Touba daanaka kenn mënu ko wax li ci mujj mooy yokkute bi nga xam ni moom la doon yokkee jumaay Touba te bañ fa jógee bu yàggu rek talaata gis nañu ko liggéey boobu daanaka pare na ñu ngay saxal tàndarma ya defar nañu goudron yi ci kanamu Touba Touba nekk na réew moo xam ne dëkk boo xam ni amul lenn loo xam ni ni ngi koy ñee yeneen dëkk yu mag yi nekk ci Sénégal ci diwaanu afrique wala ci lalu feneen loolu bokk na ci liggéey yi nga xam ni sëriñ tuuba e Dawon na ko السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته